monsieur le maire Bilal s'est déplacé ba tey nag euh, monsieur le maire nee na 10 heures ba tey ba 14 heures ñu ngi koy xaar tegaguñ ko bët mi ngi koy wër fu ne ci ruq-ruqaan Tamba yi ba tey mënuñu ko mënuñu ko teg bët euh, honorable Madi euh, c'est zolan nit ko joxoon rendez-vous la trente mu lay xaar mënoo koo gis doy na waar ñun nag ñu ngi bëgg a sonn Bart ñu ngi lay xaar monsieur le maire monsieur l'honorable euh, député Madi on vous donne la parole. asalaamaaleykum Tambacounda asalaamaaleykum Tambacounda. gars yi yaakaar naa ni wax ji leer na ñun luñ ci yokk du bëri di di wax ni que ñun dañoo yaakaar dañoo yónni te dañoo yàkkamti euh, président Bassirou Diomaye Faye yaakaar naa ay message dafa leer ñun amatuñu ñu ñuy xeexal fii Sénégal senegal ñoo ko moom. tey Pastef rek moo fi nekk amatul kenn donc lu ñuy wax mooy dañuy focus si objectif bi parce que ñu fi jaaree wax nañu wax ji lu ñuy def mooy ñun dañuy kon continuer suñu campagne dañuy dem uti suñu majorité écrasante di wax ni que président Bassirou Diomaye Faye premier Ousmane Sonko chance la pour Sénégal chance nag benn yoon nga koy am doo ko amaat deux fois soo ko amee da nga koy exploité dañuy dem uti ci assemblée parce que on a des projets dañoo am lu bëri lu ñu xaar ñu nga xam ne pour Sénégal donc ñun tey mooy suñu objectif di wax population Tambacounda projet bi bu ñu fàtte que ni yaa yi beaucoup de martyrs ay nit dañ ci dee ñun xeex moo ñu fi àggal tey jii amatu ko ñu ku ñuy xeexal dañoo gis sax ku ñuy xeexal yaakaar naa naaj bi yàgg nañ fi taxaw waaye gis ñu kenn buñ fi toogaatee dañuy perte temps rek di wax ni que topp leen caravane bi ñu dem gis population bi nee leen bu baax baa ngi nii na ko gars yi doole si urne le set bu ko defee ñu jël dëkk bi yëpp ñi jël Sénégal Bassirou Diomaye Faye joxal projet am merci à tout le monde ñu focus ci projet bi. voilà donc on continue notre belle caravane en allant à la li may wax rek mooy mooy yéen yëpp xam ngeen ni ngeen may ñu mani yéen ñëpp xam ngeen ni Tamba dafa tàng te 10 ba léegi ñoo ngi koy wër. mbedd yëpp dugg naa fa ku ne lakk naa ndax gisoo caravane Barthélémy Dias fu mu jaar wallaahi azim gisuñu ko. 3 heures moins maa ngi dem pause ba 15 17 heures ma gën waraat ko ba 18 heures ba 19 heures ba 23 heures mu xam ndax moom góor wala fa sage-femme la xam naa sage-femme la asalaamaaleykum wa rahmatulah. Thank you. élection waaw mi ngi naan gis ngeen ko ki nga xam ne mooy Anta Babacar Ngom dafa bëgg a joxe réaction mais actuellement bu mel ne que euh, garde corps yi ñooy xaw a téye va essayer de tout faire pour Anta Babacar Ngom donc donc mu ngi noonu on va essayer am li nga xam ne moom mooy la élection de Anta Babacar Ngom euh, fi nga xamante ne moom mooy ci Tambacounda ci ngeen ko y' a beaucoup de monde actuellement fii ci Tambacounda mu mel ne que mi ngi dugg oh mi ngi dem waaw mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem Anta Babacar Ngom mi ngi dem est-ce on va essayer de voir on va essayer de voir Anta moo dugg nii ci oto bi ah, Anta moo dugg nii ci oto bi gis ngeen ko donc finalement finalement elle n'a pas parlé finalement elle n'a pas parlé li xew tey fii ci tribunal bi am nañu yaakaar ne que dëgg mooy mujj ndaxte li ñu fi dégg du lu xel mën a nangu. ñun ñi fi nekkoon ci bis boobu xam nañu li xew xam nañu lu mu def xam nañu lu mu defut te nag dañuy profiter ci occasion pour wax ne que rafetlu nañu taxawaayu gendarmerie nationale ndaxte témoignage yi ñu fa dégg témoignage yu dëggu la donc il faut arrêter d'essayer d'instrumentaliser la justice ou d'instrumentaliser ne forces de défense et de sécurité loolu mooy li war a mën a andi jàmm ci biir Sénégal buñ defee naneen dañuy gis naka te loolu kenn bëgg ko suñu ku gis ñii xam nga ne que ñun nous sommes venus avec la simple volonté de libérer un frère de libérer un allié donc libérer Bougane pour qu'il aille battre campagne pour qu'au soir du 17 novembre qu'on puisse avoir une Thierno euh, Bocoum ak les militants euh, gis ngeen ko euh, gis ngeen li nga xamante ni moom mooy dafa mel dafa mel ni que dafa mel ni que yaa amalu amalu amalu bees lu génn président loo Thianga loo wax Thianga loo wax. waaw merci na ngeen def merci beaucoup. monsieur le maire monsieur le maire. ah. jeexalul leen tamit. ëllëg lan ngeen bëgg ma wax ah les sénégalais waxal waaw mais ñu jot a ci gàttal mooy Bougane dañ ko jaay doole moom la ñëpp a wax moom la ñëpp a seede gendarmerie bi nag dañ leen di masul parce ay kilifa di dem ba di bëgg a fenel bëgg leen sosal loolu la ñuy ñaawlu waaw parce que Bougane lépp luñ ko def jaay doole kese la wante comme dëkk bi dafa mimi procès bi tamit xaw a ni dëkk bi daanaka ay fen kese la woon ay ay ay manipulation moo fi dugal Bougane mm. mais nag yàlla ci mbaaxam lépp ngi leer kon nag ñu ko def xam nañ seen bopp mais parce que procès bi yëpp dafa mimi parce que procès bi dafa mimi parce que lu ñu topp Bougane amul bopp amul genn lépp ay fen la ak ay manipulation la kese Bougane nag may birilaat wax ji c'est un c'est un otage nañ ko bàyyi mu ñëw baat campagne loolu mooy wax ji ah, mimi nag lay waxal bëgg bañ il faut mu sëgg bëre il faut mu sëg a bëre ak ay maasam te ay maasam a ngi nii waaw loolu may mboolo bi mais libere Bougane lu ci des mooy le 17 novembre mais ngeen fajal seen naqar ci urne yi carte ko bàcc bu baax a baax ci kees waaw maintenant gis ngeen ko ki nga xam ne mooy Anta Babacar Ngom bëgg a def joxe réaction mais actuellement bu mel ni que euh, garde corps yi ñooy xaw a téye mais on va essayer de tout faire pour avoir la réaction de Anta Babacar Ngom donc donc mu ngi noonu on va essayer de voir waaw ndax dañuy am li nga xam ne moom la réaction de Anta Babacar Ngom euh, fi nga xamante ne moom